yow da nga mel ne da nga euh, da nga am loo xam da nga ko indiwaat pour maanaam euh, dolliwaat nit ñi ci éducation mooy daara daara boobu noonu danga ko def pour jàngale alxuraan rek parce que bëri na fi ci Mbàkke koo wax léegi mu ne dañuy sax jéggaani ba génn dëkk bi yam yóbbu seen doom feneen mais dafa am loo xam ne moom nga nisiraale ci biir walla. Euh, waaw dëgg la li ci jiitu mooy mm, ñuy dellu di sant ki nga xam ne moo sañ ci Mbàkke muy sunu maam di maam Maharam Mbàkke di maami borom bis bi tey bi muy sanc fii dafa amoon lu tax mu sanc ko Mbàkke kon ñu xam ne daara la woon bi mu koy sanc mooy foo xamante ni dafay nekkoon ngir fas yéene faa jàngale fas yéene faa liggéeyal yàlla xaj na dox nañ ba benn jamono mu mel ni xaw nañoo fàtte loolu ci sama xalaat bu gàtt ma jàpp ne lu bari ci mag ñi ñoom woy nañ am na loo xamante ni bu fekkee bëgg nañ koo defaraat maanaam ci tuut tànk yi lañ ko mën a tàmbalee su ko defee tàggat leen ci ba ñu nekk ndaw ci yar yarin ci jikko ci jëfin woo xamante ni ñoom buñ demee ba nga xamante yàlla dogal na ñu nekk mag danañ tege ci yoon wi nga xamante ni mooy yoon wu baax wi waaye mooy yoon wu sell wi mu mel ni itam euh, boo xoolee li ñuy wax daara ñenn ñi di ko di ko tuddee daara moderne Euh, mooy maanaam daara joo xamante ni ndaw li bu fa dikkee danañ ko yar danañ ko jàngal ci bu gaaw mu xam li nga xamante ni moom lañ koy jàngal mu génnee fa defi leneen waaye nag bii li ci bees mooy liñ miinoon fii ci dëkk bi mooy ay daaraa ngi fi daara yu am solo wax dëgg yàlla yuy jàng jàngal yu am solo waaye bii am na leneen lu ci bees mooy dañ cee bëgg dugal li ñuy wax formation professionnelle nga xam ne maanaam xale bi bu agsee danañ ko jàngal alxuraan bu demee ba alxuraanam mat ñu tàggat ko nag ci ay métiers yu wuute xalaat nañ fa wàllu plomberie xalaat nañ fa wàllu mécanique wàllu menuisier wàllu bari na daal bari na yu bare bari yoo xamante ni lu mel ni ñaw couture ak ay maraîchage ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dana am ci biir daara ji nga xamante ne xale bi su jàngee ba alxuraanam mat ñu jàngalu xam-xam ba ba mat danañ jël lu man ñett wala ñeenti at yoo xamante ne dañ koy defal benn formation ci li mu bëgg nga xam ne suy génn daara ji métier lay génnee nga xam ne moom day génn rek dem liggéey muy lu bees loo xamante ni fas nañ ko yéenee taxawal ci dëkk bi ndax it nag tumuranke na fi ñu ko bëggoon ñëpp dañ daan jéggaani di ko wuti ñu gëm ne lu mën a nekk la fii ci Mbàkke te dana nekk bu soobee yàlla. mais accompagnement bi lan la ñu lay accompagner parce que euh, gis na ne loolu loolu dafa am lu mu laaj muy ay moyens euh, te tamit wala bokk la nga xam ne boo koy def dafa am ñoo xam ne ñoo la ciy soutenir lu euh, mu demee noonu exactement say say propre moyen la wala bokk. Euh, waaw xam nga euh, man nga ne su la neexee nga ne samay moyen la xam nga moyen dafa bëri ay façon am ñu ci bari mën ngaa jàpp ne moyen buñ ko waxee rek mooy xaalis financier waaye itam relation moyen la yàlla mën naa dogal li koy tabax lépp hmm. mën naa bañ a nekk ci sama poos xaj na am na lu ciy nekk lu néew waaye li ci des xaj na am naa ay relation yoo xamante ni euh, su ma ko activer te danaa ko activer bu soobee yàlla loolu liñ ci soxla dana génn ba daara ji taxaw ba CFP bi taxaw li nga xamante ne moom lañ ci dëgg dëgmal lépp ñu am ko ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag ndax biñ ko lancé ba léegi wax dëgg yàlla fuju ne nit ñi ngi ma fay woowee ba léegi rek moo ci mujj ci ñoo xamante ni euh, seen i bëgg-bëgg la seen i mébét la woon waaye xëy na yàlla mayu leen woon xelam am initiative bi ba taxawal ko bi ma ko amee ba ba noppi nag ñu ci bari nee nañ léegi daal xëy na comme yàgg naa nekk seen xel xamuñ woon na lu mel nii sax danañ mas a gis ku kuñ jege koo xamante ni taxawal nañ ko am naa ci détermination boo xam ne daal fas naa ci yéene ànd ak mbooleem nit ku bëgg lu baax rawatina jullit ji kon ma ciy profité waale ci ci seen antenne bi di lancé waale appel képp ku bëgg lu baax képp kuy ab jullit képp ko daara ñor képp koo xamante ne dundal xam-xam ñor na la waaye képp koo xam ne bëgg nañoo taxawu xale yi taalibe yi bu ko defee ñu àndandoo lëkkaloo boole suñu xel boole suñu wërsëg boole suñu doole taxawal daara ji daara ji dañ koy def fii ci Mbàkke waaye mën nañu askan wi yëpp ko tax a jóg ndax bépp ndax gis nga ñu dëkk Mbàkke dem dakaar di jàngi wala beneen dëkk kon daara ji bu taxawee yeneeni doom mën naa jóge ci yeneeni dëkk ñëw Mbàkke bu ko defee jàng si fi. ñoom ñoo ci am accès. waaw buñ ci àggee nag dañ taxawal benn comité boo xamante man sama yoon bu ci nekk bu ko defee ñoom ñooy xool maanaam xale yi dugg ci yan critère lañ koy teg ba man leen a jël nga xam ne du am benn par parparloo comme dañ ne liggéeyal yàlla la liggéeyal yàlla war tam xàjj ak seen maanaam daara ji ñu ngi ko xayma ci quatre-vingt-quinze millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent maanaam téeméeri millions yu manqué ñeenti million ak uslëf euh, mu nekk ñaari xaaj benn bi mooy li ñu tuddee construction maanaam lu jëm ci wàllu taxawal tabax bi ba taxaw ba lépp loolu ñu ngi ko xayma ci euh, construction bi ñu ngi ko xayma ci 78 millions 275 mille 400 euh, maanaam juróom-ñaar fukki millions ak juróom-ñett ak lu teg lu jëm ci équipement ak aménagement ndax tabax bi mën nga ko taxal ba pare rek waaye ci biir faaw moom ay jumtukaay yi nga xamante ni moom la xale yi di soxlawoo ngir daara ji mën a taxaw loolu ñu ngi ko xaymaagoon ci million millions euh, cent nga xam ne maanaam fukki million ak juróom-ñaar ak téeméeri junni ak ñaar fukk boo boolee lépp nag ci la lay jox 95 millions 875 mille 400 euh, muy lu am solo loo xamante ni jàpp nañ ne balaa yàgg. Euh, dana dana réaliser wu ci kàttanu yàlla yéen am ngeen ci ab liggéey bu bu am solo. jërëjëf uh-huh. léegi lu jëm ci wàllu dëkk bi. yàlla dafa dogal euh, dëkk bi moom amuñu lu dul moom ndax suñ ko génnoon duñu xam feneen fu muy dem moo tax ma mësuñoo génne sunu loxo ci dëkk bi te fas yéenewuñ ko itam jamono bii may wax yow équipe bi nga xamante ne moo yore dëkk bi muy équipe municipale bi suñu borom dogal na euh, maa ngi ci biir yaakaar naa la nga xam ne jàpp naa ne war war naa ko faa def lépp ah du mën def naa fa lépp waaye def naa fa lu bari ndax lépp loo xamante ne gis naa ne jooy jooytuy askan wi la bu ñu àggee ci conseil ba wax naa ko fa dénoncé naa ko xaj na yu am na ci yoo xamante ni saafaru na waaye xaj na am na ci yoo xam ne saafaruwut bi nga xam ne nag moo ma ci gën a marqué gën ma cee neex mooy lu jëm ci wàllu daara yi ndax man daara daf ma ma sa ñor ndax boo seetloo yàgg nañ koo ànd surne hmm. taalibe yi moom <laughs> yàgg na eh, sunu borom dogal na eh, ci waaw ci ci yàllaa ko yàllaa ko def waaye ci suñu borom ci man la ko jaarale ñu taxawal ko mu neex ñu torop ñu nekk ci at mu jot ba équipe bii nga xamante ni ñëw na tey muy équipe bu bees bi te sëñ Abdou mbàkke Ndaw di maire bi bi mu ñëwee gis na ko rafetlu ko ne ma danañu ànd def doxal ko te yaakaar naa mi ngi koy doxal